Malaw. Malaw maa lay ziar. sooy ziar bu baax. na am jàmm bu baax. nan ngeen fas yéene dem. ndam rek ndam nga xamante ne mooy. ndam rek yàlla yàlla man dem soxna Seydou. neex wala bëri. non gën nañ ko. bu dara bu nga jàppee mu xam du dara du am dara. bu neexee yàlla ak yow. gis 200 pour cent Pikine bi yëpp génn. Pikine génn dooleel soq. Pikine génn génn dooleel soq ngir mu am ndam. Fra tere nga yoon dara. tere xam ka mooy soq. bëri bu bëriwul. dañu ko wax ne Pikine bu ñu jógee jóg nañu. te Pikine jóg na. amul lenn représenter seen carrière. waaw mooy loolu mooy carrière soq war a dépassé fii dafa bokk si biir gars yi. mbir mi war a bokk si biir gars yi vraiment a mu sedd guy yàlla yëkkati ko si kaw. boo xam ne moom moog gars bokkuñu. mbir kaamil la ñoo ngi koy ñaanal mu sedd guy si kattan yàlla ak yeneen bi da la am. Fra tey dañ ko bu neexee yàlla ak yeneen bi. Ama Baldé 200 pour cent bi lan nga ciy a boole benn la Pikine la mos a doon bu Pikine jógee soxla rek ku soxla ngay xaar ba tey dinañ leen ko war bu neexee yàlla yóbbu xaaral ñu ne Ibrahima noonu laay nuyoo mbokk internet yi di leen wax ni ñu ngi fii kër ki nga xamante ni mooy soq Sokh war a laaleeg Franc mu nekk bis boo xamante ni waa jàmbaar production ñoo ko organisé mbokk yi gisee oto bii tey nga xam ne ci la Sokh fas yéene yéeg. dem stade ci la soq fas yéene dem xare bi nga xamante ne tey moom la war a laale ak kii di franc waaye soq mi ma gis oto bi teel naa pare de lii de mooy teel a dugg marché teel a yàq teel a séer teel a yàq waaye teel a lekk moom soq ma nga noonu Ibrahima kaay ñu xool ginnaaw oto bi waaw oto bi bu ko mbër yoree ci ginnaaw war naa mën a def lu ne war naa mën a def lu ne lépp loo xalaat. ci wàllu ci mikaay oto bi war na koo mën a def ndaysaan gis nga poster baa nga noonu ñii ñooy njabootu Pikine ndax boo ne bàcc seeraas ne Ama Balde ne Eumeu Sène ne Boy Niang tudd nga Pikine ndaysaan waaye xoolal ci suuf suñu papa Fallaye Balde ngi noonu Pape Diop ndaysaan suñu papa Père Dégol ma nga noonu waaye <laughs> soo ko ngi noonu ci digg bi uuf Pikine en daal lu mën a xew tey kaay Ibrahima. gannaaw maa ngi lay siyaar. tey am jàmm baax. man Cheikh Ndiaye. Cheikh Ndiaye waaw. ban heure nga yeewu tey. que bés la ñu ko jaral. daa lu ñu soxla. affaire yi tuuti wax jëf lu bëri ñun xam nañ suñu mbër. xam nañ li mu sañ ak mu coupable ak mu capable ñu ne moom xale ba te dara du xew jàmm ak salaam rek ndam rek incha allahu rabbi. Franc nee na mu jaare la ay moromam la way jaare. nee na un deux trois tey loolu la fas yéene. loolu wax sa la boo ci nekkee loolu neex ngay wax mais jàkkaarloog sa moromu góor naa ko 30 ñaata combat lépp a dugg top 5 Franc man combat moom mos a dugg top 5 bu gars yi jaawale mbapat dool jóor bi ku wér xam koy sa bàyyi nag tuuti wax jëf lu bëri après lay doon réponse waaw ala soq gis nga. non mu ngi ci di doxee affaire am pare nañ démb tey soog a ñëw. noo gisee état de forme ak moral. macha bañ. barke sëñ Fallou. prix la ñuy bañ. yàlla yàlla ànd ñun nag. yàlla bu yàlla tas yaakaar ñun prix la bañ. parce que alxuraan karim waa parcelle ay tapet la ñu. loolu moo tax ñu tatouage suñu yaram yi def suñu roi des arènes te heure bu ñu ñëwee dañ koy dëpp. day ñàkk fépp. moo tax nga def ko. tous dara lu xew. parce que alxuraan karim fier d'être piginité 100 pour 100 ñu jëm. billahi wallahi dëgg ma de. Cheikh Ndiaye. bu soq dëpp Cheikh Ndiaye bu soq. de yàlla. da ngay tere gars yi dugg. waaw xam rek affaire yi faaw ñu organiser ko. may sax ko. parce que lamb bi yéen ci lamb ngeen nekk. xam ngeen ne lamb la. lamb pire la ñu France champion la ndaanaan la. mais ñun nangu su ko nanguwul. na ko ndaanaan ñu boole la nag. Ah, mais moom nanguluñu suñu ndaanaan ñun dañ ko nangul ne ndaanaan la mais moom nanguluñu ne ndaanaan te na xam ne tey bis bi Pikine ñoo jóg. booy bëreeg mbër nanguwula sa ndaanaan nan nga war a mën a def. waaw wane sa ndaanaan. Ah, mbër te nanguwula sa ndaanaan pourcentage yi am ci làmb ji yëpp yaa ko ci ëpp parce que moom buy ñëw day jàpp ne moo mën soog mais bu arbitre sifflé du ñu àgg moom ñaari minutes te bu def def loo lii maa la ko wax bindal denc dina dinañ ko daan mu ñibbi këram mu doo xam ne daan nañ. man ma hôtel laay liggéey trois jours nelawum jeudi ba léegi tëdduma ci laal ndax bis bi man ku ma yëg ma la laa juddoo ñëpp xam nañ mais ku ma yëgul yëgu ma la soq na daf ma yëg moo tax bisam jarama lu ne te bu fekkee liggéeyu ndey ak jaar jaar àdduna mooy maye moo koy ngeen gis lu garaaw maa ngi koy jaajëfal bu baax ay sachet la ñu yor ndaysaan di ko séddale Ibrahima Ndeysaan kii mooy Sokh. da ngay génn ah, da ngay génn Ibrahima Kaay Sokh 2 tey bis nu mu laaj Sokh. loo xool dee loo xool dee. non. saa rek. mais confiance confiance moom mel noonu quoi wóolu suñu mbër gëm ne bu arbitre sifflé mu daan ko bu gaaw ñu dem suñu yoon quoi. waaw waaw incha allah. waaw waaw waaw. waaw sant yàlla rek. lépp lu ñuy séntu daal su lu baax su lu neex waaw mu ngi si moom quoi te tey moom wax dëgg yàlla moom xalaatuma dara lu négatif waaw lu positif rek laa xalaat si bés bi te incha allah dañuy daan sooba yàlla Franc yaa ma ko gën a xam yaa ma gën a so xam so ndax bari na foo xamante ni laale ngeen fa wala daan ngeen ànd lan nga gën a mën a xam ci moom non wax dëgg yàlla nag Franc xamante nañ nii rek si koñ bi nag ndax ñoo bokkoon benn koñ bu ñu doon dëkk mais mosuñu laale mosuñu ànd man ak moom daawu leen fréquenté. non non non daawuñu fréquenté daawuñu fréquenté wax dëgg yàlla. moom nee na rakk soq laa doon àndal. non c'est que loolu ay waxu mbër rek. moom moom ba mu waxee loolu moom maanaam moom waroon na xoolaat boppam sax. ndax xam nga comme tey jii parfois ngay wax benn wax boo xam mu leeral li ngay wax du dëgg ba pare yaa ngi koy wax man sama yaay ba mu gisee loolu dafa ma laaj kat kii wax nii kan la mu ne suñu kër la doon fréquenté sama yaay ñëw na ma kii kan la quoi affaire yooyu comprendre nga. ndax maanaam ñi ma doon àndal ñëpp sama yaay da doon xam comme su waxee loolu moom dina jaaxal sama yaay loolu tax ma ñëw maire bi di ko di ma laaj loolu quoi exemple mm. mais jàppee ma ko dara ndax waxu mbër la xale-xale lu mënul tee nga nekk maa mag comprendre nga te say at moom bu yokkul du mos a wàññeeku waaw loolu nag laa koy wax di ko wax moom champion la xam nga. ñëpp ñu ngi ci ginnaaw Modou Lo Papa Sow Goro Sock ñëpp ñoo xamante ni waa parcelle lañ nee na 1000 pour cent la ñu woote yéen 200 pour cent ngeen woote mais ñoom 1000 pour cent la ñu woote. waaw ku nekk ak sa gis-gis rek ñoom loolu lañ gis quoi mais ñun suñ 200 pour cent doy nañu wax dëgg yàlla te ñun xeebuñ suñuy mbër yu mag ñun am am Eumeu Sène Boy Niang ak suñu papa yi ñun ñoom lañ am. waaw te xeebuñ nag benn yoon nag lépp lu war si combat ko ba mu di ñaan yàlla defal ndam bu seddu guy. man heure la nar a kër gi. non paree rek génn incha allah mais lépp war daal dinañ ko def bu soobee yàlla. am na ñu gis fii mooy teel a ndugg marché teel a taal teel a sóor teel a yàq parce que soq mii ma gis daa mel ni 15 heures dina ko fekk. non ñun suñu paree te añuy paree laax te añuy parewul ko fiy bàyyi dem suñu yoon añ teewuñu tegu si yoon bi te tey la ñuy xam maanaam soq soq soq mooy kan tey la ñuy xam soq mooy kan Franc nee na moom su daanee soq na suñu ponkal yi taxaw Modou Lo mi ragal amoon yi bañ a bëreeg moom su paree xam nga dafa ragal amoon na may saa soq Papa Sow moom mooy loolu moom garant bu ñu respecté la waaw moom moom kenn du wax naka su dul noonu si moom quoi ndax moom dafa yar boppam respecté boppam moo tax kenn mënu koo yab daal waaw moo tax loolu moom du ma si wax dara mais ay mbokk yi noonu la demee Ibrahima Ibrahima kaay ña gas am na kuur bu ñu suul xaw kuur la xaw ma bopp kuur la xaw ma lan la waaye en tout cas daal Pikine tey <laughs> waaye Pikine waaye. li ma gis Pikine yéem na ma. Isa Badlan Isa Badlan kaay wàccal tëbal ci loo nekk. sant bu a am jàmm. waaw sant bu baax waay. nga soq préparé bi contact dem saal def lu ne. ban état de forme nga gis ci sox actuellement nii est-ce que gisante ngeen yéen. non xel daal na moom wax yàlla. bu dëgg rek neexee yàlla. non xel daal na ci kaw laa waatee dama yëgaat léegi incha allah. gis nga ko waaw gis nañ leen soo ko day ñëw nekk waaw. nu mu naa est que instant bi instant moom naaj quoi yàlla xam na ko naaj waaw kontaan nañu instant dal na dal na xel daal incha allah waaw xel dal na baax a baax incha allah. équipe bépp ko dara yàlla xam def ko xam ne dara incha allah rabbi incha allah rabbi yàlla xam na. Pikine dafa woote pour cent parcelle woote te pour cent yi ginnaaw roi des arènes fa ne. Papa Sow ma nga fa Gora Sock ma nga fa Garga ma nga fa ñoom ñëpp dañoo ànd doole ki nga xamante ne mooy Franc ni ko une minute lañ bëgg nga daanal ñu so waaw fii 3 millions pour cent moo fa am 3 dañ xam ne 3 millions pour cent moo nekk fii Pikine incha allah rabbi ñëpp a génn ñëpp ñëw jàpp ci ñëpp ñëpp amul kenn ko des contact tëdd ñëpp ñoo ko joxandoo lépp yàlla xam na ko. lan ngeen pare ñu nii pare nañ daanaka dañuy dem waaw pare nañ incha allah ñu ngi bëgg di gasaan incha allah. te bat leen. la ñuy gas am na lu ñu dugal benn xaatim bu weex la ñu suul ko ci suuf <laughs> waaye làmb waaye waaye làmb lépp aar la. ci lan nga nekk. as gërëm yàlla sant leen di wër. waaw maa ngi jógee fa si affaire bi ma def si ñu si ñu si bagage yi waaw ñu si bagage bu baax a baax. waaw jàmm ak tawfeex rek incha allah boo xoolee ne xam ne ndam la quoi waaw ñu ñaan yàlla sax leen suñu loxo képp ku dëgg Pikine ak fépp foo mën nekk ñu lay taalal nga ñaanal ñu ndam bu sedd bu gaaw waaw si kàttanu yàlla waaw. Franc nee a nekk waxam la gi sa borom góor si 30 secondes ñun ñun toll nañ fi ñuy jàppale ko gi waaw rawatina na ci signature bi ànd ak moom jàppale ko gis nañ Ama Baldé combat bi enjeu wu bi fan la toll. waaw loolu yëpp nekk fi gën quoi ñoom 100 pour waa parcelle bi yëpp jël na ñun 200 pour cent la comme ñëpp doole waaw te bu am si ne da ngay wax ñun 200 pour 200 pour cent moo doole 100 pour cent. Kaana nee na ñoom 1000 lañ de. waaw ñoo yëgul waaw 1000 ñoom 100 lañ annoncé ñëw 200 pour cent bi ñëw bis ñëw bu doole. Franc day du gis dara lépp ñoo koy def si kàttanu yàlla. lépp lépp lu mu laaj rek àndal nañ si lépp bu dee xeex àndal nañ si xeex bu dee bëri am nañ si bëri. waaw kon du ñëw ba tey ñu koy yàq te tey day baax incha allah. ak jiili gis nga ña ngay koy arrosé ndeysaan gis nga ndox nag jàmm la ndox mu bari glace bu bari lu baree baree bari jàmm la ndeysaan waaye en tout cas daal xam naa ni bis am na fu mu toll ci wàllub làmb xam naa ni bis bi am na fu mu toll waa Pikine waaye bis bii waay làmb waay oh deux cent pour cent Pikine nekk ci ginnaaw soq ndeysaan

dal nee na leen ndànk ay fils de Balla nii lan la ndeysaan xale mbër yi kenn xàmmeetu leen ma nga noonu ndeysaan